waa gën a jàpp rek gën a jàpp rek comme comme comme début championnat moom defaguñ dara quoi mooy loolu ñun suñu objectif mooy yéeg quoi loolu loolu lañ ko te lu ñu mën a gën a jàpp si équipe rek def incha allah. waaw donc dañuy sant yàlla suñu borom moom mi nga xam ne may nañu dugg ci match bi ci bisimilah jaw alhamdulilah rabbil alamin donc yombutoon parce que xamoon nañu bu ñu ñëw fi dañu fekk match bi nga xam ne dana métti trop mais aussi ñun suñu jeu aussi préparé na leen pour mettre donc tous les appuis dans suñu côté. pour que bu ñu ñëwee fii yàlla mun ñoo may ndam donc xam nga une euh, victoire bi nga xam ne premier match donc toujours rek ça donne de la motivation donc moo tax daal ñuy liggéey aussi dañ la woon xale yi quel que soit alpha il fallait ajouter que c'est un résultat positif pour avoir une bonne assise maintenant ba nga xam ne sur le plan une bonne assise nga xam ne dañu permettre une place confortable loolu aussi bu encore xëy de manque de concentration la donc xam xale yi bu ndugalee bi rek ils ont savouré tellement la le wu mais aussi c'est loolu aussi ci compétition bi la bokk c'est des choses qu'il faut qu'il faut corriger rectifier pour les préparer dans l'avenir pour que bañ a amati. waaw vraiment en tout cas daal boobu laa ñun daal ñu wax daal en tout cas ñun daal li nga xam daal mooy liggéey lañ xam donc ñu ngi ci chantier bi liggéey vraiment joueurs yi aussi ñu ngi adhéré projet bi vraiment dirigeants aussi ñu accompagner pour ñu mettre dans de très bonnes conditions donc en tout cas daal tout ce que nous faisons encore aussi avoir les pieds sur terre nous avons joué nous ko maintenant naa ñu ñu jute donc loolu moo am solo quoi. mënul ñàkk mënul ñàkk waaw non mënul ñàkk mënul ñàkk xam nga aussi jamono buy recevoir Bambey di déplacé du ñëw aussi xam nga aussi c'est normal mu nekk un derby donc ñun ñëpp jubal lan dëkk li ñu tax a jóg mooy defar footballu Njaaréem mais aussi vraiment aussi di encouragé waa on a assisté surtout à une très bonne première mi-temps franchement parlé wax dëgg de qualité quand vraiment loolu aussi vraiment di ko di ko di ko di ko aussi li ci am solo rek mooy ñu continuer pour mun a defar footballu Njaareem pour que Diourbel mun a dem ca kanam. seen journée dañuy recevoir Daara moom tamit dafa génnoon Dóor moom tamit dañuy recevoir fii donc ñu koy waajal incha allah pour la prochaine journée bu soobee